adhéré nga nga nga rejoindre le PASTEF. Euh, euh, rejoindre PASTEF Ousmane ça fait plus de deux depuis deux mille quatorze deux mille quinze on discutait et d'ailleurs aujourd'hui j'ai eu des nouvelles sur sa santé donc aujourd'hui on est très content de voir qu'il va beaucoup mieux et qu'il est en santé et en forme tous les messages qu'on a reçus de lui confirment cela donc ah, ñu sant suñu borom ñu koy ñu koy gërëmee suñu borom mais Ousmane depuis boobu lañ commencé waxtaan ñu discuter euh, des fois invité dañ ko club de la diaspora je le dis toujours avec Amath Diouf mu ñëw fa euh, Amath m'avait demandé de lui poser des questions et j'ai vu tout de suite cette connexion qu'on avait sur la dimension territoriale qui est une qui est lu nga xam ne képp ku gëm libéralisme xam nga ne décentralisation mooy fi nga ko mën a wane connexion boobu tout de suite ça s'est fait et connexion boobu depuis 2015 moo continuer ba jur livre bi les territoires du développement mooy gëm-gëm bi ñu partagé man ak moom que tant que libéré wuñu énergie depuis les territoires mënuñu am impact ñu bëgg ci askan bi mais pourquoi on a l'impression man su may euh, xool sa sa sa comportement avec Pastef. Mhm. j'ai l'impression que euh, seeyuloo da nga bokk Pastef peut-être da nga adhérer à une idéologie à une façon de penser à une façon de voir mais seeyuloo comme un militant authentique dafa da ngay garder toujours benn benn benn réserve ci yow la wala waa Pastef ñoo la euh, ñoo la fondrul bu baax seen seen seen biir. ba yan fee moo mun a corroborer. Euh, non ci sa ci sa démarche. Euh, politique la la man c'est ça que je perçois. Ousmane me dit souvent que maag yow ni ñu ni ñuy bokkee ni ñuy gisee sa. non du du gis-gis je veux connexion dire intellectuelle bi dugguloo bu baax baax baax. je suis membre du cabinet ci euh, comme le font les El Malik. Mm-hmm. voilà c'est-à-dire comportement militant boobu. non c'est une. j'aime pas dire du bien de El Malik mais. non c'est un gars bien nag. non j'aime pas dire du bien de lui. <laughs> c'est un gars formidable franchement. bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ma njëkk dalal ba ma duggee Pastef vraiment formidable. waaw mais je veux dire euh, en fait damay xaar en fait ku mel ni El Malick le comportement militant. de El Malick non mais bon El Malick a mais dafa mel ne dafa am benn réserve toujours booy booy kii alors Pastef ñoo la laaxul bu baax wala yow yaa téye sa bopp. au contraire man bokk naa ci ñi nga xam ne parce que j'évolue beaucoup sur les réseaux sociaux. et les jeunes de Pastef avant may dugg Pastef toog nañ deux ans naan ma Balla da nga war a dugg Pastef man on m'a xamoon naa ne jour bu may dugg Pastef j'allais faire la dinaa am mbégte te dinañ ma ko rendre au contraire man euh, ça ñi nekk Facebook mën nañ koo confirmer je fais de ki nga xam ne ñëpp dañ doon wax ni kii ak Ousmane li ñuy wax c'est la même chose oui, sur la question oui, de la souveraineté vu, monétaire. j'ai vu vu avant mm avant avant ma lay gën a ràññee. Mhm. que ñoom dañoo doon plébiscité comme parce ils l'ont fait euh, que... avec Ngagne Demba. Mhm. mais pourquoi biir parti bi amoo fa yenn imprégnation yenn implication yi. premièrement l'élément mooy je suis au Sénégal depuis un an man je vis dans la j'ai fait vingt ans dans la diaspora donc tey mën naa ne mois bi lay fêté suma une année. de vie au Sénégal parce que j'ai beaucoup immigré. J'ai fait 20, 20 ans à l'extérieur du pays. Donc quand tu passes, euh, depuis ma adhéré PASTEF, c'est la première année où je suis ici. À, à, temps plein À temps plein, avec mon cabinet, et je travaille ici. Donc, fille, première année de la c'est le élément. Mon temps aussi, événement, je pouvais pas assister parce que j'étais de l'autre côté, j'étais au Canada. L'eau, c'est un premier élément. Deuxième man je suis quand membre du cabinet donc quand bo amee position membre du cabinet am na yu bëri yoo xam ne tu fais très attention parce que tout ce que tu dis ou que tu fais. ça peut engage tu es membre du cabinet et puis tu as en charge le programme présidentiel législatif et municipal donc dafa am benn retenue boo xam ne da nga ko war a am ok ça nekk na une réalité deuxièmement par contre man je suis très politique ah. à Diourbel j'ai euh, tous les week-ends on est là-bas on fait notre nemmeeku Bawol on fait le tour des quartiers on fait des massifications on crée des cellules on est à fond dedans mais c'est vrai euh, kuy xool vie active u Pastef bu dul at mi doo ma remarqué